dafa tudd baatub salaf te jublu ci alqard alqard ngir yàlla rek koy waral mooy kooka am na loo xam loroon na ca aajo woon na ko nga abal ko rek ngir yàlla nga xam ne lu toll noona la lay delloo sil niki pepp jafe na mbaa ceeb jafe na mbaa leneen nga jox ko loo xam ne da lay delloo si lu toll noonu képp loolu luñ sopp la waaye nag ngir yàlla dong tax ñu koy def du nangu yow mi nga xam ne yaa koy def nga am ceeb benn benn njariñ niki ki nga xamee ne sax mooy able ngir yàlla si sàttalee kooku ne ko dama lay jox lu màggat ji yow nag lu yees nga may andil niki pepp mu màggat mu jox ko mu yees wala mu larax mu jox ko mu laraxu sax mu daal di araam su fekkee ne nag kookee ñu abaloon ba muy delloo si dañ ko abaloon ci waxtu delloo si wa da koo coobarewu mu jox ko qualité bu gën a rafet loola moom sañees na ko ayut dem naa dem sax ba duñu nangu lan ko abaloon ngir yàlla bañ àggee ci waxtu fay wa nga ne ko dama koy fayee ci béréb sàngam mbaa danga koy sax nga yóbbu ko ci béréb sàngam fekk na bu la ko joxe woon fii mu la ko war a joxe moom da nga sonn ci fay transport ba ak xeeti coono yi ak yooyu wala xeet duwaañ ci yoon wi rek contrôle bi yooyu nga saxee nag ba mu di la ko joxee ci béréb boo xam ne moom doo ci am benn benn coono loolu sax ñeneen lañ koy jàppee duñ ko nangu. moom daal lépp nit aajowoo lor ca nga xeetli ko dibli ko ci jox ko ca lay aajoom te mu lay delloo ci rek lu toll noona lu mel noona. loolu sopp nañ ko lool waaye nag dañoo bëgg ngir yàlla kese lal ko nga xam ne moom ma koy def du ca amaat benn njariñ bu may tuyaabu jëm ci séentu ca yàlla mooy alxardu laa yakunu illa lillahi subhanahu wa taala maanaam jaay ak leb mbaa leble ñaari contrat la yoo xam ne faaw dañoo war a teqalikoo dañuy jaayante ci wet leblente ci wet waaye du nangu boole yaar yëpp ci benn contrat leb wala leble nag am na ñaari anam benn bi mooy bi nga déggoon léegi mu jëfandikoo baatub salaf te ciy ëpp jëfandikoo baatub alxard mooy li nga koy abal ngir yàlla tax te lu mel noona lu toll noona képp la lay delloo sil beneen leb bi ci def nag moom miin nga ko mooy li nga koy jaay du la fay fa saasa da ngeen di sàkk délai boo xam ne te la la war a fay si lu ci mën doon rek xeetu salaf la léegi nag bu ñuy jaayante du nangu mu ànd ak kenn ci ñaari xeeti leb mbaa leble yooyu ne ni ki nga ne ko marchandise mii boo ko nangoo jënd daal ma nangu laa lebal marchandise mii ci des nga xam ne kon ngir nga lebal ko moom may moom da nga koo sart ci mu jënd mii loolu yoon du ko nangu mbaa boog nga yore matériel boo xam ne da nga ci daa bay te bayatoo ci yow bàyyi nga bay nga fekk abaykat nga ne ko nag boo nangoo jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci ma nangu laa lebal aw jiwu nga ji buñ ci àggee nga delloo si ma lu toll ne li ma la ablan rek ci aw jiwu waaye nag faaw da ngay jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci loolu ba tey yoon du ko nangu ndax abal nga koy abal ngir yàlla jiw ba da nga koo sart ci faaw mu jënd matériel boobee te yow bëgg daal moom kenn du lëkkale jaay ak leb mbaa leble faaw rek dañuy jëflante ci wàllu njaay mu beru jëflante ci wàllu leble mu beru ba tey nee na li nga aaye woon léegi ci boole jaayanteeg leblente ci benn contrat ba tey noonu la ñuy aaye nga bëgg a boole leble ak defal ma mu fay la ak leble ak luye nangam leble ak defal ma ma fay la moom mi ngi mel ne rek nga fekk koo xam ne métier mën na ko lool waaye nag jumtukaay yo muy liggéey ci métier ma da koo jafe nga ne ko yow day buñ juboo mën naa laa lebal jumtukaay yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci sa métier mii waaye nag ci sartu am na lu may liggéey lu loo xam ne man ngay njëkk liggéeyal ba àggal nga door a jëm ci keneen mbaa leneen su boobaa kon abal nga koy abal ah lebal nga koy lebal matériel bi nga xam ne moom lay liggéeyee da nga koo sart ji faw da lay defal la nga bëgg da nga ko fay sax waaye da lay defal bëgg da lay defal la nga bëgg door a sañ jëm ci keneen mbaa leneen ba tey loolu moo koy yàq ba tey boo fekkan kuy jaay ka jënd waaye nag marchandise da koo jafe nga sartanteeg moom ne ko man day mën naa laa lebal marchandise moo tàmbalee jaay ko jënd waaye nag ci sartu nga nangoo luyee sama place ba ca dëkk ba boo nangoo luyee sama place boobee daal ma nangu laa lebal marchandise nga tàmbali ci jaay ko jënd xam nga kon lebal nga koy lebal marchandise moomee da nga ko sart ci faaw day luyee sa place boobee ba tey looloo koy yàq kon jàppal ne albayhu ak asalaf kenn du ko boole asalaf ak ijaara kenn du ko boole asalaf ak kira kenn du ko boole maanaam leen lu ne bu ko sa mbokk bi di soxlaa nga dimbali ko abal ko bu lay delloo si lu toll noonu képp yem ca dañ koy def ngir yàlla loolu lu ñu soppa sopp la nangu nañ ko nag ci lépp lépp ba mu des li mu lay bëgg a wax mooy jamono yi jébbeel amee mooy booba jaamu ngi dox li nangu ak góor nga abal ko jaamu jigéen boo xam ne araamu ko ki bu dee jigéen sax mën nga ko abal ngir yàlla jàmbu jigéen ne moom bu dee koo xam ne araab na ko itam araab dappet ba tey mën nga ko abal waaye nag duñ nangu góor goo xam ne jébéer bi araamu ko di ko ko abal tëgg bi nga xam ne tëgg wurus mbaa xaalis fa nga xam ne moom lay tiim ci suuf sa wurus mbaa xaalis ba di fa ruus doolee fay ruus du nangu ku ko jaay du nangu ku able du ñu nangu ku ko jaay du ñu nangu ku ko leble ndax xamuñu la fa ruus muy ruus it ja nu mu toll te looy jaay des ko war xam bu wér a wér looy leble itam noonu léegi nag buñ ci jëfalantee te yoon aay woon ko ba kañ ko jaay mbaa kañ ko lebal ñëw jeex ko seppi la ca nekkoon dañuy seet rek ku jeexal nit lu toll noona seppil ko ko rek luñ ko ca war fay ñu fay ko moom mi nga xam ne moo seppi dañ bañ a topp nag lañu waxante woon ci wàllu jaay mbaa wàllu leble takk-takk bi mooy lim ko ameel ci bor moo xam day marchandise moo xam day wurus sa xaalis moo xam day ñam ndegam moom delloo la jëm rek duñ nangu ñu juboo ci waa ji wàññil ko nam toll woon mu fay lu yées loola te mu fay ko fi saa sa bañ a xaar délai ba loolu duñ ko nangu mukk mukk loolu ñuy wooye ci téere fiq yi daa wataxaj jël maanaam wàññil ma li ma la ameel te ma fay la ca des fa saasay saasa mooy li ma la ameel boo ci wàññi nangam la des moom ma daal di koy fay fi saasay saasa fekk délai ba artéegut loolu dañ koy aaye saa yu nekk fépp lañ koy aaye moo xam lañ jëfalante woon ngir yàllaa tax muy alxarud mbaa ba ñu jëfalante bëgg bénéfice tax ñoo ci yemoo ba tey it ñu dem a dem ba ci délai ba waa ji war a fay ñu jubóo nag léegi ci mu toppalal ko dere ba waaye moom it mu yokkal ko lim ko amee loon ni ki moom da ko waroon a fay nangam ni ki ab junni te ji la ko war a fay ñu jubóo ci mu toppalal ko nag délai bi ba muy ñaari weer te mu fay ko junni juróomi téeméer ba ñaari junni lu mel noonu bokk na ci araam araam duñ ko nangu mukk mukk ci genn anam moo xam dañ jëfalante woon day jaayante rek ku nekk bëgg bénéfice wala sax ba mu koy abal junni ba ngir yàlla dong dèjà loru woon rek moo ko sasoon da ko abal junni rek ngir bu weer wi deexee mu joxaat ko junni bi nangu rek ñu àgg ca ñu jugoo ci mu toppalal ko dell bi te kooku yokkal ko dara ci junni ba loolu moom duñ ko nangu mukk mukk benn yoon. lañu sopp kay mooy su ko mënee mu jekki-jekki toppalal ko dele ba ne ko may naa la nga wéy ba dele sàngam nga door maa fay fekk moom lam ko ameloon rek la koy fay du ca yokk dara. loolu moom tuyaaba la ci am ndegam yéene na ca ngir yàlla bu kenn ameele moroom ma marchandise moo xam ne da ko ko war a jox ci délai sàngam laata ñu àgg ci délai boobu nag mu ne ko ah man day mën naa la koo jox léegi léegi te yokkal la ca sax tan bañ a xaar délai boobu ñëw loolu day bu fekkee ni moom dañ koo jëflante woon ci wàllu jaayante mooy kenn ku nekk bénéfice rek nga bëggal moo lool seenu jëflante duñ ko nangu faaw dañuy bàyyi rek balaa kookaa mën a joxe marchandise mooma dañuy bàyyi faaw ba délai ba jot waaye du nangu mu joxe ko am lum ko ci yokkal te fekk délai ba ak seegut loolu la ñu tudde ci cëri fiq yi xutta ak damaana wa asiduka wala mën ngaa jàng wa asidaka maanaam li ma la waroon a fay ci délai sàngam daal jekku naa ko lool te léegi li dàq ci ma fay la ko ci man kon nag mën naa la koo fay ba noppi yokkal la ci nangam te bañ a xaar délai bañ waxan kon saa yoo ko amee li marchandise rek moom di nangu nga yokkal ko ba noppi fay ko ko fi saa si nga xam daal day jiitu délai ba nga ko ko war a fay ndegam nag kenn ku nekk ci yéen ñaar bénéfice doon wut bu nekkee ngir yàlla tax ñu jëfandikoo nag moom li mu wax bu fekkee dafa soxla woon rek ceeb mbaa dugub mbaa lu mel noonu nga abal ko ci lim boo xam ne day delluwaat lu toll noonu kese nga xam ne ngir yàlla dong moo ko taxul ngeen seq ko kon moom daañu nangu wax dong ko war a fay ak seegut nga fay ko ba noppi jox ko lu gën a baax ci qualité lam la joxoon waaw nga xam ne ni ki bëri ko bi nga koy delloo moo gën rafet ba mu la joxoon waaye nag gis na ne gën gi ci qualité ba la waaye du ci ëppante ci tolluwaay ba bu dee tolluwaay moom la ñu wax su fekkee ni nit da nga ko abaloon mu xeetoog marchandise maanaam daal loo xam ne du wurus du xaalis moom ko ko abaloon ngir yàlla doo nga taxantam nag niki nga abaloon ko bërigo pepp mbaa bërigo ceeb rek te yàlla tax bañ àggee ci waxtu ba mu ko war a delloosi nag ba mu koy delloosi mu nar laa jox lu ëpp loola niki bërigo nga ko joxoon mu nar laa jox bërigo ñaar fukki kilo waaye moom kat. ci coobareem rek la koy defee du ab sart bañ ne yaa ko wax ne ko faaw nga tegal ma ci ñaar fukki kilo ndax bu waa kon moom du baax aay woon ko bii tam moo la ko diggoon ne la buñ ci àggee naa la ci tegal nangam ba tax laa nangu ko it xam ne ni moom du baax du aada itam foofa ndax kenn waru ko aadaal lu mel noonu moom daal moo jekki-jekki rek ba mu lay fay rigo ba mu nangu caa rek ñaar fukki kilo mbaa lu ko soob daal ci dolli waaye moom amutoon sart bu ngeen sartante amutoon ab dig bu mu la ca digoon du aada itam foofa moo jekki-jekki di ko def rek foofu ñaari kilifa yi wute nañ ci achab nee na loola war naa dagan ndax dañ ko defal njëkk rek mu fay njëkk la te rafetal fayin wa ibnu xaasib ne déedéet ndeka moom alxardu la mooy lu ñu def rek la ngir yàlla wóoru caa nag ñu tegal ko ca dara dara dara dara ndax dañ ne woon alqardu laa yakunu illa lillahi subhanahu wa taala ba tey nag wax ibnu xaasim yooyu la ñu sukkandikoo maanaam koo abaloon lu mel noonu bu koy delloo si mën na laa jox de lu gën a rafet loola waaye nag mu jox ne lu ëpp loola ci tolluwaay moom duñ ko nangu jàppal ne loolu moo gën a wóor dafa tudd rek ay dinaar ak ay dërëm waaye daa bëgg a wax rek ne soo ameelee kenn xaalis kaas bu jëm délai soo ko mënee fay te délai ba ñëw guttam sañ nga ko koo fay te moom du sañ a bañ ndax dañoo jàpp ne xaalis kaas moom fab ko yoraale fu nga jëm yomb na kon nag boo koy fay rek moom du sañ a bañ ndax amul benn coono ca loola waaye nag nee nañu bu fekkee kat dëkk ba nga koy fayee bukkut ak fam la ko lebaloon maanaam bukkut ak fam ko ko war a fayee kat te diggante bi am na coono war na cee fayaat dara mbaa mën nañu koo tafu ci yoon yi ragal nañ ne daal bu tuut ak jàmm yóbbut sañ naa bañ ñu la faawu kat dama koy joxe fa mu ko war a joxe waaye bu fekkee daal amul dara luñ cee ragal moom ñàkk ak cig délai ba maanaam ñàkk yëg cig délai ba nga ko war a fayee du tee rek sañ nga koo fay te moom du sañ a gàntu ne bala nga maa fay nu àgg ci délai ba mu war a fayee foofu nag duñu seet ba xam nu ngeen jëflante woon ba loolu dox seen diggante mën naa doon muy jëflanteeg jaayante maanaam koy dara wut rek bénéfice mën naa am itam muy jëflanteeg ngir yàlla mooy kii daa able woon rek ngir yàlla ndax gis ne kee loru na ca. ba tey boo amee ne nit marchandise wala ñam waaye dala ko abaloon rek dala ko abaloon rek ngir yàlla dàq bénéfice taxutoon ngeen jëflante ko ba tey kooku nee na bu fekkee délai bi activité du tey rek soo ko amee mën nga ko ko teel a fay fa saasa te aajowoo ñuy xaar délai ba ñëw. benn rek mu lebaloon la teb ndax boobu daa fekk sa pepp jeex ngeen jubóo woon ci pepp ñoree diggante far yaa indi la xéewal nga am pepp ma kon mën nga koy jox du aajo ñu xaar ba waxtu ñu waxante woon ndax loolu bëgg jaayante cosaan la abal ngir yàlla rek la woon su boobaa moom able woon ngir yàlla buñ koy delloo loolee du saña bañ a nangu lu may nag da koy joxe ci beneen dëkk bu bokkut ak fam ko ko abale woon te diggante bi am na peen maanaam am na coono ci sëfe ko fii yóbbu foofu mbaa lii wóora di ci duwaañ yooyu su boobaa kat moom day wax ne ah déedéet dañuy bàyyi ba faala ko joxe woon nga delloo ma ko foofa nga seetlu lee mu ne laamin bay hin mais bu fekkee la taxoon mu amel ko ñam wa mbaa marchandisme ak jaayante la bu jëm ci dele kon bu neexee moom mi nga xam ne moom lañ ko ameel mu ne ah dañuy bàyyi ba àgg ci dele ba ndax foofa laa ko soxlaa soxlaa guma ko léegi kon bul jaawale min xardin ak laamin bay hin fee nga wees woon ca gannaaw nag moom ka ameeloon waa ji marchandise mbaa ñam da koo nangu woon a fay fa saasa am lu mu ko ci yokkal fii nag moom da ko bëgg a fay rek noonu te sax amut lu mu ko ci yokkal dara dara loolu daal bu waa ji nangoo ndegam ak jaayante la woon su waa ji nangoo ci ñu fay ko ko fi saasa loola baax na waaye su ne faaw dañuy bàyyi kat ba ci délai bañ ko waxante woon ndax booba laa ko soxlaa it ñu ne ko sañ loolu